ah fadamtu li li li wolof yi naan eh wolof yi naan wuré wa dem na këŋ eh hey laa illallah ah eh ah? ah mais Pape lii garaaw de yaa ngi gis loolu est-ce que xam nga ne ko bala suur si est xam nga ne maa la ko doole bala de kon yaa ngi xool Royal. la. jë eh, ah. dama ne la est-ce que xam nga ne laa la maa la ko doole. ne ma waaw. yaa ngi wax di ah, day appart nii. ñaari ko nga sànni di xeex. dama ne ne waaw. loolu concerne ah. a ne dama doo daan kenn ñoom lañ daama de. gisoo sa waay mu def léegi. doo daan kenn dama koy daan. Khalifa saa waay gaal si billet yi waay. ah. fi ne nii billet yi danoo bëgg ay salle bi ñu duy ko moom fees parce que dañ la bëgg a jàppale. incha allah ma dem taxawal nii ba jam séeri taxawal nii wuy ma. kii dafa rux gaynde wu ma dafa jug bëri te def Mbaye Diagne international. bi xanaa gisoo ko yow gos bi sa waay dugal. Mbaye Diagne international. sa waay Mbaye Diagne international. waaw. dig na ne dina jënd ay billet yu bëri. Hmm. mbokk ki nga xam te ne mooy Khalifa waxal ci lii ba dem la xam Mbaye dina bëgg a rek Mbaye Ndiaye. dem la doog a xam Mbaye Ndiaye ci combat bi nii. Ah, combat bi dina xam ko dina xam dina xam ñoo xam ni. <laughs> looy jalousie waru a xam. parce que koy wax rek ku laal loolu lu warut jël lu warut jël li nga wax lu warut a wax. barki sëriñ xanaa déggoo ma dama ne retour de gladiateur damay wax lu bëri. doo jëf lu bëri doo tus. xanaa déggoo ma doo dara. wax lu bëri jëf lu bëri. doo dara. loolu laa bëgg nga def ko sa bopp. barki Serigne Bamba doo dara. barki Serigne Bamba doo dara. mais yow lii garaaw na de barke borom Tuubaa doo dara. mais bu ne rëcc jàppante dina ne su ma yëngu du ma runkum daje xelam barke Serigne Touba contact bu ne moom yomb na de mais bëre moom jafe na de mm. jafe yow su ma ne nuus su ma la téye yow mi rapporté ne jeex na. da ngaa xam looy téye man ah. mooy téye yow mi bëru bu leen arbitre bi waxee ni làmb nangu ak ni làmb bañ mais moom da nga nii. lépp lu ma mënti doon mbëru xaar ak mbëru lu mu mënti doon dama ne su ma la téye. yaa ngi koy jaay doole su ma la téye. xam naa ne na wax na jeex na. Eh, man ragalu ma la du ma ragal. wuy mooy ci tefes gi tefes gi la jóge de. da koy napp kaa taxaw du ma ragal wax la keneen man lébu laa bu dama doon lébu da bu dama ma ragal li nga wax ni yóbbu ma fenn. xam nga combat bi li ma communiqué yëpp nee naan combat gladiateur. yow yow foo préparé combat bi nii. man fu ma nekk préparé. gi wala ci biir man fu ma nam fu ma nekk préparé man. dunia wala ci tefes gi wala naa lépp. bu ma neexee ci diin laa koy yéeg. waa Thiaare a ñëwaat combat bi dama wàññi bi pour pour jàpp ko mbokk ak moom mu xam ne maa ko dàq bëri fuuf. fan ci supporter yi. yaa ngi wax Xalifa Sall dina jënd béy Mbaye Diagne international dina jënd billet préparé combat bi yi wala ci tefes gi wala ci biir géej gi amul diir feneen ñëw mbaam mi loolu xaar yàlla la ñëw mbaam mi loolu lay ñëw man maa ngi maa bi rek laa nekk di liggéey ak Sall amul diir de ma entraîné man maa am diir maa yor diir da tàq Sénégal man te entraînement wu bi génn seen diggante rek rek rek rek amee dem déclenché xeex gis nga gos mu sànni sànni léegi jam man damaa ragal lool bi génn kii déggoo li ma la wax. kii bu xeexee dama koy duma ala daal napp rek. kii bu xeexee dama koy duma. bis boobu duma. ci suba laaj boo xeexee dama lay duma. te boo bëree dama lay daan facilement. bis bu mu duma laa ci suba laaj. ñii dañ na wàpp rek. mais hmm. pour ñu tëdd. kii li muy xool moom. loolu doon problème si moom xam nga moom muy xool ay sama poids ay wàpp yi man xooluma ci moom dara. man xam nga xool ci moom jàpp ko daan ko dem ñibbi. saa yi loolu laay xool ci moom. champion nga naanaan nga da may déglu. champion nga naanaan nga du ma la ko bañal. peut-être nag yow man nga maa bañal. mais yow du ma la ko bañal non temps bañ lu ma la de champion nga ndaanaan nga. ma la de te nee nga wàpp fi mu ne nii. mais pour nga tëdd. du doon problème si man. gladiateur bi ngay waxal de. en tout cas combat bu nar a neex la de. bëri njool ak ndaama. yaa may dégg fi mu wax la. am na dem mii wax ji bari ji la ci am si combat bi. mais xanaa yow da nga maa déggul. da nga maa déggul xanaa. faaw mu wax retour de gladiateur wax lu bëri. jëf lu bëri. sa retour bi mooy yéex. da ngay xeexul da ngay bëri. yéex. yow nga toog bëri boobu ba léegi maa ngi compétir. quatre ans nga toog bëriwoo. kon trois ans nga toog bëriwoo. deux ans nga toog bëriwoo. xamaloo lu ma toog bëriwoo xamaloo lu ma toog bëriwoo. yaa ngi ne fi ma ñaata at nga toog bëriwoo. loolu intérêt boobu ba léegi maa ngi compétir. en tout cas laa mujj bu doon tey jii bu ñu bëree pare dinañ maa ngi compétir man. non jam teel benn saison rek la toog wala ñaar. ngeen xam eh. ne at ni ngeen di tuddee at dafa bari. maanaam danoo toog. Uh-huh. coronavirus dugg. waaw waaw kon toog nga ay ñaar damaa daan teg teg corona am. maa ngi daan 15 jours lañu teg ñu dugal corona. Balzaay bi waaw kenn bëri moom mi di wax. Hmm. waaw. borom Gambia man ma bëriwul la. Hmm. mais yooyu amul solo xam nga lu am solo. maa ngi mais yow bi nga bëriwul yëpp yow yaa ngi entraîné. man dëgg ma xool naa yaa ngi entraîné ba jour ba. kii buñ sumbee ko. yow moom kii day dinañ xool kan moo man ma sonn man Mbaye yi ma xam ak ak amateur yi ma xam man du ma sonn ci combat du ma waaye lenn xam naa ko ci. man naa jéew am naa jumi jéew xam naa ne daal nit am naa fulla fayda te loolu mooy làmb te mi ngi ci man. nga gladiateur bi nag. da ngay xeex wala da ngay. amal ma. pour ma pour ma leer combat bi xam nga lu ma bëgg abi ne pire nga jug nga ne ñoo ko ñu bëri si ñu ñu ñu ñuy supporter loolu xam nga ne loolu day am ñu ñuy supporter xam nga xam nga ne loolu day am loolu laa bëgg xam ñuy supporter man ne ma ay naan ay arbitre bi ne si nekkuma fa arbitre bi dina pire ñun ñu dem tëdd di nara da ngeen di xeex ba pare doo ko bëri wala dadul ñëw wallahi dadul ñëw sa waay fii laa la ko waxee nag fii laa la ko waxee dama ne retour de gladiateur laa la wax kon kay jeexal na wax moom peut-être xamul luy gladiateur. maa gën a xam li may wax maa ko wax man dama dama amul temps boobu. dama ko daan dem ñibbi. da nga koy daan dem ñibbi jam téeri nag yombal na combat bi nag léegi lan ma baal ma bàyyi leen ngeen woote kon yow wol mbay jaañ ngay waaw. Fadam yaakaar ah. naa ne fii làmb ñu toll. heure bi tey danga am ñaari tey da nga am ñaari grand combat yoo xam ne nii. Fadam non bu leen laale Fadam bu leen laale fii kan moom mooy dóor. non bu leen laale fii de. babal du ñu laale duñu laale duñu laale. loolu ñii lay jaaxal. jëm Thierry jëm Thierry jëm Thierry jëm Thierry daam question yi lay posé. jëm Thierry wuyul wuyul daam daam kenn tuuma foo dugg foo duggul. ah wuyul faram ba pare samay mbokk sax xamulu la. yàq nay bëre ma ne ne jëm Thierry daan naan kan mooy jëm Thierry. non non xamul la. Ah, mais jë jëm ceeri lan la fàtte. jëm ceeri jëm ceeri nga bëri mbër moo xam ne nii xeexkat la ci làmb day bëri day xeex. ñi ma xeex yëpp bëri na ma mais Ahmed Deme nekk na koo xam ne nii day xeex. ñi ma xeex yëpp bëri na ma wax waxal dinañ wax. Ahmed Deme xeexkat la. ñi ma xeex yëpp bëri na ma ñoom. non bëri ku la ëpp relance bëri ku la ëpp relance. keneen kii mu tax ñi ma xeex ñëpp mën nañoo xeex mais. Baye Ndiaga maa ngi lay woo. Birane Marière maa ngi lay woo. di au capitaine gaal yi. caaroy géej Ahmed Deme. Ahmed Deme ci sa carrière bëreeg mbër mu la ñemee nii mbër yu bëri dama laa gis dañ la daan suuraale waaye ngay bëri mbër moo xam ne gisul sa mën a xeex gisul sa mën a bëre loolu lan lay def ci yow. moom nag mosuma nangul nag depuis lool. mais nag énu amul problème non non non attends waxati duggee ci biir géew bi na ma nangul premier jàkkaarloo arène nationale mais bu at bu ngeen duggee ci biir géew bi yéen ñaar mm-hmm. mu nga gëdd ko mu taxaw nga gëdd ko ci bëri mu taxaw non day taxaw kii du arrière bu arrière non du arrière. lan moo ko ci mën a fekk loolu. kii lu ko siy fekk moom xam na ko bu baax kii bu taxawee dama koy duma bu ñëwee jàppante ak man ma ko lu mu mës a bëri si àdduna. ah yëkkati micro bi. jëm jëri gëm nga ni kii mën na la duma yow. duma déggoo li ma lay wax déggoo li ma lay wax de. yëkkati micro bi billaahi wallaahi taala képp ku jax taxaw jëm jëri tiim ko yaakaar di boobu nekk di ko duma yaa ngi na sa bopp mës nga père Arona mais xam ngeen combat bi fu mu leen mën a faram faram dama ko bëgg a laaj ndax mës na bëre ku ko ëpp nii relance sut ko sut ko waaw Bara Ndiaye mosul ci lamb ji igil kan kan Bara Ndiaye igil Bara Ndiaye waaw am na wala amul waaw Jiba monsieur le maire moom sut waaw maa ngi lay woo ci combat bi <laughs> am na wala amul jënd piquet ku ñu ko fi sut bëri moom boo ñaa ñoo neexoo sama père Basirou Sow man bu baax ay relance mm-hmm. man bëri dama taay yëpp ñi dàq bëri Sénégal bëri ñoom ay lépp André Sall ñi dàq bëri lépp la ma bëri dama bëri wurikat wurikat yi

antiré la ñoom kon. babal nañ ñëw toog. gars yi mun ay ragal lan dañuy wax rek. ñu baale ngeen ngeen ngeen woote. ah baale ñu woote toog ñu woote toog ñu moo dàq. ñu woote rek. ñu woote après ñu. Ah, waaw waaw toog moo dàq. bismillah. ah nañ de. Fadam. Eh, waaw pare nga def. mais pour nga tëdd. fi mu toll nii. du ah, sama ronos. xamuma. jëm man nit jëndiwuma la man. xanaa déggoo ma man li jëntiwuma la aw ma lenn lu may sóor si yow. déggoo ni ma la xanaa le 23 juillet xam nga lan la lan laa seq ak yow. waaw le 23 juillet arbitre bi sifflé ma jàppale daan. loolu nga wax ah ma loolu man maa ko wax man. yaa ko wax tey. waaw même man man yaa ko wax man ñu nekk en direct. bu ñu bëree ba ci bi nga wax yow yaa ko wax. waaw bi ñu la wax bu du ma waaw di woo Issa Marière. parce que si dina ma ko Assane Talibe di woo nag sama sëriñ <laughs> di woo Baye Sèye waa daayira sopp nabi. Eh, jam te eh, jam te li muy tàng na de. suñu perte bi sa combat la suma xarit suma conseil maa ngi lay woo bi suma père sa combat la. Hmm? di woo nag waa Caaroy Géej yëpp sama waa écurie. Hmm? Hmm? entraîneur yi vraiment président écurie Bamina Ndour. comme dab comme li ñu waxtaanee woon. combat baa ngi noonu solo vraiment combat bi nekk na combat boo xamante ni respecté nañ ko te fonk nañ ko. Mhm. te bu ñu ñëwee le jour ji non dinañ xam ne ñëw nañ waa mais Ahmed Deme combat bi lan la mën a def ci sa li mën a def sama carrière mooy ma avancé dem ci kanam parce que il est temps. Mhm. parce que man na ma wax ne bu waxee dëgg rek. Mhm. yoon wi na. yeex na trop tardement am na laay wax. mais daan jëm jën daan jëm tiir yi fan la mën a yóbbu Ahmed Deme. dam jëm téeri waaw no fi mu mën a yóbbu mooy li ma la wax rek si kanam la ma mën a yóbbu si kanam la ma mën a yóbbu li nga xamante ni pour ñu nangu ñu amee dem champion la mhm. non su ma ko tëralee ñi ñu bañoon non dina nangu incha allah pour loolu am ci biir géew nan la amee dem di réagir non fulla ak fayda comme d'habitude parce que ku bëree vingt et un combat mhm. trois défaites la am vingt et un combat laa bëre fulla ak fayda lay andi du ma andi dara ñàkk fayda combat bi awma lu ma siy négocier mais dama gis ne jëm ciir yi nanguwul sa dara tey du ko nangu mais le jour yi dina nangu incha allahu rabbi maa leen ko wax billaay wallaay tallaay ci dina nangu. Hmm? jëm ci ri dinga li Ameth Deme wax. nee na biir géew ba yaa moom wax ji waaye biir géew moom yëkkatal micro bi billaahi wallaahi tallaahi incha allahu rabbi ni nga nangu. kon kon doole ko ci yow yow yow yaa moom yow. yow bu lijjanti lu may wax. xam nga lan moo la concerné yow lan moo la war a concerné yow li nga war a wax. sama incha allah ñàkk incha allah concerné wu la. te da nga gëmul ne Ahmed Deme lii muy wax nii lu mën a nekk la gëmoo ko. jëm ci yéen da ngaa gëmul Ahmed Deme ah? li muy nii laa xam. lu foo teg loolu. parce que damaa xam ne lépp lu wax ci bëri rek daa ne ci mën xamul. yëkkatil mi loolu xam nga ci laam parce que euh, ko def attaque bu leen mo amagul defee bu ko defee waa Thiaroye xam ne dumbal dégguma nga ne. bis bu ko defee waa Thiaroye xam ne yoruñu mbër. bu amee dem dafa sa kaw xeex ak yow bëri ak yow waaw dox sama kaw ñëw waa Thiaroye xam ne yoruñu mbër te nee na billahi wala daf may daan dinaan wax dina bëri ba pare ma ma ma ma dugal wax ci bi. dara doo ko dugal. alma alma alma am micro bi mais man li ma jaaxal li ma jaaxal te am am am. am micro dafa am problème. non bii daa eh, am problème dafa am problème problème maa ngi ñaan ma ndam. mais dama gis ne dama gis ne dama dem ne Ameth Dème Ameth Dème bii ma gis nii gëj naa koo gis. Ameth Dème bu décidé. mosul signature ak mbër nii xam nga lu tax waaw waaw ñi mu daal bëre xam na ni ñii nii carrément bu ñëwee mën a négocier daan leen. mën naa négocier ñoom daan leen. ñëw na waaw mais ki mu uh-huh. kon kon kon nga jàpp ne Ameth Dème day négocier. wax day wax day wax rek. yëkkatil micro bi. day wax kese. mais day wax la ndax jëndal production xam ne esprit bi nga yor ah. esprit bi nga yor ndax jëndal production xam ne liy tëdd waay sa esprit bi nga yor yow ñu lay changé micro nga nga naan ay dox la ay wax rek mooy loolu daa bokk ci lamb micro daa wax naan day wax rek loolu du lamb waay day wax dañ fay nekk pour di jox ay benn mbër micro boo xamante ni bokkul ak micro bi ñu war yi wuy ma eh am wuy ma nan wax leen war a wax rek ah déedéet yow kay waxoo li nga war a wax non ku ci nekk da nga wuy ma nan wax li war a wax rek. non non bul defati loolu. loolu baaxul faram bàyyi ko waay monsieur Doudou waay. non man ma wax dëgg yàlla toog pour jël di saa ay micro yooyu rafetul sax non non loolu du yow du yow man la man la du yow. ñun ñu ngi julli di ñaan yàlla suñu borom non man loolu. comme yàlla naan man waat nga. yaa ngi waat man maa ne billaahi wallaahi tallaahi incha allah rabbi dama lay jàpp dama lay tàmm. loolu garaaw dégg nga wala déggoo Serigne Touba wul morom ñun ñuy ay jullit di wax fi yàlla suñu borom Serigne Touba wul morom yàlla ñu gën laa gëm yàlla non wa man yaa bëgg a gëm yàlla. am leneen looy. a gëm yàlla mais ba len ba ba ba sa landi ba. ma ne ba bëri yàlla nu yàlla yóbbu ak jàmm ba la jour si nooy départ. dinañ xam ne dijj dëgër ak a gën. man moom dijj ma dëgëruma mais dinaa daan ci soobee yàlla. waaw. man comme comme li ma wax rek maa ngi woo ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi dégg supporteru amee dem nga ñëwal nga gunge ma si combat bi le jour yi yàlla may ndam maa ngi woo ñëpp nag képp ku may béggee maa ngi lay woo di woo Issa Marière di woo Bamago di woo ki nga xamante ni mooy Assane Talibé Cheikh di woo nag waa daayira Sopp Nabi di woo Serigne Issa Touré Serigne Issa Touré combat bi sa combat la Baye Seck combat bi sa combat la di woo nag waa Lexaar waa Pambal waa Duñaan di woo waa Kees vraiment waa Serif Lo Njaxate Njaasaan maa ngi woo ñëpp waa Thiaré Géej nag bàyyiwuma leen. Mm-hmm. vraiment maa ngi woo ñëpp ñu ñëw jàpp si bés bi. ki nga xam te ni mooy Birane biraan Marière moo Baye Ndiaga ñëw leen jàpp si kombaa bi. Mbaye Diagne international li ngay bañ a dégg Mbaye Diagne ba ma nga xamee yàgg na. Mbaye Diagne sama goro la Mbaye bu jógee li nga xamante ni mooy Europe bu ñëwee sama kër goro yi lay dal. yàlla yàlla defal jàmm. kon donc bu am dara looy jalousie yàlla yàlla may sa ay borom yàlla yàlla defal jàmm ma bëgg naa dégg na ma may waaw voilà la may yàlla ay borom waaw bëgg naa Khalifa Sall Sall les frères combat bi sa combat li oo ñëpp nag vraiment di bégg ñëpp waaw sant Serigne rek sant Serigne Touba bu sant Serigne Touba bu wér ndax ñun moom ay modèle ñu ngi bégg waat ñëpp nag di jégalu waat tamit ñëpp lépp lu ñu fa lu ñàkkas ñu ngi jégalu waat ñëpp mais nag ñu ngi woo waa jandeer gi yëpp waa tund jandeer bi yëpp daal ñu ngi leen di woo tund kenn sëñ Bamba sëñ Bamba def gis combat bi sa combat la sëñ Ndiaye Boga Ndiaye xam nga ma xam combat bi sa combat la Cheikh Ibrahima Ngom bu sëñ Saliou combat bi sa combat la jantal Mara combat bi sa combat la di woo waa Mbour Géej ah di ma nekk di woo sama grand Bombardier ni ko combat bi na nga am taxawee taxawel noonu ñu ragalul loolu di woo tunu jandeer bi yëpp lu bis lu si mel ni Kayar Kër Dundooy Mbaawaan Njoxob Géej Jandeer Toor bàyyiwuñ kenn na ñëpp daal génn képp koo xam ne daal deretu jënd deretu jënd rek mi ngi mi ngi ci yow di laa wërte combat bi génn. sama copain Malick Ciss. ngeen soutenir seen seen rakk soutenir seen lépp. Issa sama xel ak Issa Issa ñu ngi lay woo ci combat bi boobu ba léegi nag gisaguñ la ñu ngi lay woo ci combat bi monsieur le maire ah Mamadou Ba ñu ngi leen di ci combat bi. di woo waa diaspora bi yëpp mafia diaspora bi yëpp ñoom Moussa Sall ak ñoom Baraye ak ñëpp ñu leen di woo ci kombaa bi. di woo waa Daaru Karim sama koñ papa Touba di wax kilifa Daaru Karim yëpp nan tàllal loxo yi nan kii nan nan téye jàppale may ñaanal ma comme ni ma ñaanal rek ma am ndam ci ko amee dem waa jandeeran ah, waa njar sama dëkk samay kilifa nga xam ne yéen moom jandeer combat bii seen combat combat bi leen gën a soxla nag sëñ Góor Ja combat bi leen gën a soxla combat bi leen gën a soxla sëñ Matar sëñ Moor ñun ñëpp ñu leen di wow Bambos la solution combat bàyyi noonu yaay noonu waaw di bëggewaat ñëpp nag di ziaraat ñëpp di ñaanal sama mbër yi dëkk jandeer sama morom sama sama ak sama mbokk lébu yi dëkk côté déen ñëpp bu ñëwee yëngal am ndam ci kàttan yàlla képp koo xam ne daal jigéen nga lébu gi te jigéen ma rek maa ngi ñaanal jàmm ak xewal bu jour ba moom le 23 juillet ci kaw ba ci suuf dara luy sedd am barke Seydina bépp bépp mbër buy ngem di ko di ko di ko nar koo seddal toogal seen kër xaar ñu ñëw bu ñu fi yóbbu daal bu ñu fi yóbbu lu xamul parce que ki ni bëri bari na wax te xam na ni ni fay ay wax Sëriñ Tuubaa morom. jaajëf yow daa mel ni da nga maa déggul de eh? Eh. li ma la wax mënoo kaa bañ. nee naa la retour de gladiateur wax lu bari jëf lu bëri te bu jour ba incha allah li ngay bañ a dégg dama lay daan mu neex la mu naqari la. jaajëf Fadam Tou Fadam Tou maa ngi lay maa ngi lay jaajëfal bu baax.